moo ñu boole ca 2008 2009 2010 du tey démb la ku xamul nag xamoo Ketchup mën na féete woo fu féete ma féete fu ma féete te duñu ñaawo te loolu la ñuy dund maak moom coow bari na ci Ketchup jëme ci nit coow bari na ci Omaro jëme ci nit waaye mosu leen dégg Ketchup ak Omaro mosulaam parce que dañu xam li ñu boole muy gannaaw bi ñu Balla Gaye dénkee kóllëre ñu war ko sàmm Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké la ñu àndee moo tax su wootee lu nu mel c'est ma fierté ma yëg ko ma bàyyi lépp lu ma jàppoon ñëw teew ci am naa kontante am naa mbégte li ma koy ñaanal nag mooy Cheikh Ketchup bii na nekk cent onze Cheikh Ketchup balaa déwén yàlla mën na ko yàlla na ko def te Ndakaaru ak li ko wër ci barke borom Tuubaa comment tu vas grand. maa ngi si jàmm. dégg nañu baax am jom. barke alquran. xam nga ni soo amee jom. Omaro Omaro li ngi soo ma a jël. li ngi indi fii deux bu sekkee cop. barke alquran. ngir fooxal ci réew mi. li ñu indi fii mooy jom ak fulla ak fayda. amul dama ko naw. ndax ñu bëri. ndax barke alquran. ndax ndax ñu bëri ñu bëri dañuy jàpp ne dañoo dafa ñàkk fayda dafa ñàkk fulla dafa matari waaye xam na li mu bëgg xam na li mu bëgg te moom Amérique bi mu nekk dañ ko naw dañ ko faa ko gëm ñàkkul fulla de te daa gëm ay waajuram nawloo ay waajuram nawloo ay fameem number two waa diaspora bi jox ma benn décoration jox ko Fadel Dakar Buzz mi indi naa ko ak DJ Yves parce que waral loolu mooy seen jàppale euh, jàppale jàppale waa Amérique jàppale diaspora bi ak jàppale askan bi nga xam ne ñoo soxla ah, ak ñu nekk situation moom trophée bi dinañ ko jox te yéen ñi trophée bi yéen ñëpp ko moom kii nag yàlla na ko yàlla jàppale lii lii lii nii c'est Ketchup day dem ba Amérique waaw kon nil yal na yàlla doon suñu sama fierté waaw kaw nañ yaa kii na waaye dama ci jukki ñaar rek wala ñett li ci njëkk mooy bu ñu gisee jeune nekk xale doon sénégalais di di yëngu ci économie wareef la tey képp ku ko yëg bu la ko sa jot mayee nga ñëw jëmmal bés bi ñëw encouragé Boucher. ndax li muy def Sénégal la koy defal. ndax Boucher umpulewu leen nii bu ko neexoon mu dem Amérique toog fa wala lii mu def ko Amérique waaye fii la ko defee ci réewam fi mu juddoo mu fekkee baax fi ko baax fekk foofu la ñëw def lii di employé ay donc képp ku ko yëg ngay kilifa ngay ngay ngay citoyen rek Sénégal ñor la loolu danga ko war a rafetlu lool waaye beneen tànk bi aussi tànku mag la. tànku wóllëre la ndax buuse senegal yépp xam na ni ma jàppe man nag dama nit koo xam ne kenn ma jam naa ne soo ma bëggee ma bëgg bëggee la boo ma jàppee ma ma gën laa jàpp te buuse mii daf maa jàpp ba ma xam ko te cofuma tamit loolu sama deret sama ngor mayu mu am bés bu mel nii ma tànkam lu ko loolu mënta ne loolu moo waral sama ñëw fii may ci am mbégte mbégte bi ma ci am buuse man du ma fàtte xam nga lii mas nga ma ko wax boobu léegi mu mat ñaareet wala ñetteet wax nga ma ko yàgg na boobu ba léegi maa ngi lay suivre nit nag li sëñ doon wax ne nit koo xam ne waxi démbam ak jëfi tayam bu ñu méngoo booy seet nit jàppal nit nit a ngoow bu fekkoon danga maa wax loolu ma toog cinq ans dix ans gisuma ko damay xam ni buuse mii demul fen wala bouse mi xamul lu mu bëgg waaye wax jang ma waxoon ak lii nga jëf tey wane ne xam nga fi nga jëm xam nga li nga bëgg donc dañ lay remercier di la encourager di la wax ni kër gi suñu kër la ñun ñëpp ñun ñi fi teew ñëpp jàpp ak ñiy ñëw jàpp naa ni bouse lépp lu mu yëngu dañ cee war a jàpp bouse ñun bu ñu xiiful bu ñu xiiful sax dinañ ñëw añ bu ñu xiiful dinañ ñëw naan bu ñu xiiful dinañ ñëw reer ndax sa yëf suñu yëf la te wax dëgg yàlla man de sama bopp sa ngor ak sa dëggu loolu de dama ko xam sama jëmm ji ndax nit ku nekk bu yàgg ci loxo ni ñu la téye xam nga ko ndax ñun dañoo gis ku nekk fréquenté ku nekk ku ne ñëw ci ñun aussi ñu xam ku nekk ndax sàmmkatu mboot moo xam ba tey soox te dofuñu du ñuy xale ñu ngi bëgg a yàgg xam nañ ku nekk la nga làmboo ku ñëw ci ñun xam nañ na nga na say intention mais yow say intention macha allah dafa sell ba ma xam ko doxuma waaw loolu moo tax yow daal na la leer ni di sëriñ Saliou Mbacke waxoon gaañ boo ma jiitoo dinaa la takk bu ma la jiitoo dinaa la xaar waaye bu ma la gisul dinaa la wëri jërëjëf Thank ñoom ñoom salaire ci réew mi di laal weer deux cent mille man tànk naa ne tey yaa bari jom doomi Géejawaay borom bu bon club parce que Serigne Touba la fa la doon ba tànk naa ki dimbali affaire jeunesse su